bisimil ilaahi ci barkeb sayxi fàddilu mi buru yàlla dolli noo ay maqaam yàlla bisimil waaw jaajëf ñu leen di bëggee bu baax a baax a baax tey question bi mooy kan moo gën a bëgg jigéen tey kan moo gën a bëgg jigéen ci ci doomu adama euh, ba ci mala yi parce que ñëpp yàlla moo leen sàkk waaw ñëpp yàlla moo leen sàkk kan moo ci gën a bëgg jigéen ak kan moo ci dàq mën a sëy kan moo ci dàq mën a sëy kan moo ci gën a mën a sëy kan moo ci gën a ëpp euh, awra tey loolu moom mooy euh, question bi ah ma ñëw ci doomu aadama doomu aadama am nañu yàlla may awra boo xam ni mënuñ cee sëy suñu jubalul dañ am treize au repos treize mooy dix en érection bu nekkee ni bu jugul nekk dix mooy quinze en érection bu dee ay gènes ñu fixé wu ci yow ci côté awra bu bu rëy ci côté ndey ci côté bàyyi ci maamaati maam yi mën nga am dix jugal am seize virgule trente bu dee am nga quatorze Europo am nga dix-neuf bu dee am nga nag euh, seize mën nga am vingt ba vingt et un seize au repos vingt et en érection euh, su may consultation démb rek consulté naa ko am soixante-trois ans mi ngi ci au repos euh, dix-sept centimètres érection bi c'est vingt-deux actuellement ni mënatul sëy mais awra bi amul benn site bu ci yàqu amul benn site bu ci faible bopp awra bi tamit faible awra bi mi ngi ne jodd taxaw dara sikkul ci awra bi yaram bi tamit dara sikku ci mais deretam moo màggat moo tax awraam mootul jóg deux ans ngi nii sëyul kon awra bu rëy awra bu mag baaxul ci boo guddee fan boo lompoñee nekk ndaw mën na lay xañ a sëy ba sa loxo nga ci sëyee lu dangereux la awra bu gudd boo weesoo euh, europo wu quinze ba quatorze jëm kaw risque la parce que fi dund bi toll yi nga war a lekk yépp dund bi baaxatul lépp chimique la doole biir bi war a nekk ci yow du nekk ci yow ndax doole biir mooy contrôler élection moo moo wér-gu-yaram te du nekk ci yow moo tax awra bu gudd nattu la boo xamante ni lu yéemee yéemee yéemee yéeme la euh, ñu ñëw ci bëy muy chèvre moo gën a bëgg jigéen ci mala yépp waaw moo gën a bëgg jigéen moom ci benn quinze minutes boo xefee mën na yéeg lu jege dix fois kon ku bëgg jigéen la waaw moom tamit moo dàq détecté chaleur jigéen jigéen bu war a tëbu ci mala yi buñ ci boolee xar moo gën a néew moo gën a néew kàttan moo gën a néew li muy sëy mais bëy ko dàq détecté chaleur chaleur nag mooy euh, xar bi war a tëbu wala bëy bi war a tëbu bëy moom kenn dàq koo détecté xentu ni xaj mën a xentoo ni xaj mën a xentoo noonu lay bëy di xentoo sexe bëy lu mën a xentu sexe la waaw bëy tamit daf bëgg jigéen lool mais seenetee foor yenn foor yi mais nag moo tane xar moo tax xuuru xar mënul dara ci góor waaw day gis xar sax bu gëreesee du mën a du mën a sëy waaw bu yéegee du bu yéegee awra du génn xar bu gëreesee dëgg dëgg dëgg jël poids dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg xar bu jigéen mën na jàpp sëlër mais bu yéegee aro bi du génn li ko waral mooy lim graissé moo bari day àppaat waaw te xar ñemewul coono te boobaa kër bi day battre giléem bokk na ci dàq sëy ak lion muy li ñuy wax gaynde ak xaj bokk nañ ci dàq sëy waaw bokk nañ ci dàq sëy waaw bokk nañ ci dàq sëy muy giléem gaynde chien waaw chinois yi xam nañ ci dara ci wàllu chin parce que ñoom am nañ ci xam-xam bu yéeme yéeme yéeme yéeme euh, ci aphrodisiaque yi muy gereesu xaj sexu xaj ñoom am na nu koy lakkee mën nañ cee liggéey ay aphrodisiaques yu yéeme yu yéeme sax kon boo xoolee ni euh, xaj moom durée durée moom macha allah ndax moom dafay sëy ba kole dafay sëy ba kole ay trente minutes vingt minutes boo xamee sax une waaw ñett ñi daal muy gileem chien lion ñem ñen tànk ba ci segg sax bokk na ci mais moom dafay ñëw ci niveau bu mujj bi waaw boo xoolee mbonaat sëyam mën na yàgg mais dafay dund ci ndox te lépp lu dund ci ndox baleen bëla moo la mën baleen bëla moom la awram toll ci deux virgule quatre mètres waxuma centimètre de mètre laa wax awram deux virgule quatre mètres ay xuuram toll na ci quarante cinq ba 68 kilos ba 68 kilo kon ki waxoon ci tabaski bi ne xuur xa day yokk day defar góor kon xam nga ne euh, jën bi moom moo moom lañu war a jël xuram di ko di ko di ko di ko dundee <laughs> loolu moo gën a yéene maanaa moo tax xam-xam dafa laaj laata ngay wax nga càmbar li ngay wax ci xam-xam waaw parce que caméra neex na lool mais waxal dëgg te yàlla tax. Euh, baleen bëla mandiwam mën na dem ci lii tax mu am doom mandiw boobu mën na dem ci vingt litres bu sëyee ba noppi moom lay génne longueuram ci tolluwaayam mën na trente mètres ëpp na ñaari këru ndakaaru kon loolu yéeme na euh, poids am day dem ci cent soixante dix tonnes cent soixante dix tonnes foo am dem une tonne këram dem six cent kilogrammes kooku nag mu ngi ci géej gi nekkul ci suuf si suuf si moom bëy ci gën a bëgg jigéen giléem ak gaynde xaj ñoo ci dàq sëy lii bu ñeexoon développé ko indiwaat yenn mala yu dul jeex mala yu dul jeex mais jaru xam-xam ki ko am boo ko déggee xam ko ki ko amul boo ko déggee xam ko kii fabriqué ba ko déggee xam ko man dépassé naa foofu dépassé naa foofu xam-xam may waxe man maa ko moom c'est privé c'est privé man maa ko moom man Mouhamed Fall naaru Serigne Fallou tradipraticien guérisseur fajkat bu ñu ràññee lool ci àdduna si wërngal këpp jugal ba mu dëgër toj nga bës rek mande bi tuuru jigéen boobu am na infection wala am na ndoxum sidit bi tàng yaramam yaram bi tàngaale sexe bi yow tamit sa ndoxum siti jugal nga sa yaram tàng bopp awra bi bu duggee dajale ñaari tàngoor yi mënoo appuyer trois appui mënoo sëy lut trois appui benn ñaar ñett mande bi tuuru fekk awra bi dëgëroon na au en érection mais ci bu mu duggee ci pax mi rek ci la màndi bi génn ci trois appuis parfois sax buy dugg booy rocc bala ngay perdre deuxième bi rek màndi bi génn na ndoxu góor génn na loolu nag feebar la ci ñoom ñaar ñépp yaa ngi dégg feebar la ci ñoom ñaar ñépp waaw feebar la de ci ñoom ñaar ñépp ñépp ma xamala loolu gis nga góor góor ci cadre sëyam minutage am li ko yàlla may ci minute dafay tënku ci sante wér-gu-yaramam ak force intérieure am yàlla am nañu may quinze minutes yàlla am nañu am na ñu may dix minutes am na ñu may sept minutes am na ñu may une minute am na ñoo xamante ne tennis sax bu ñuy dugal rek daan te feebaruñ ku mën a encadrer ku mel noonu ki yàlla def mënta sëy benn appui benn appui mënu ko sëy man ma mën koo encadrer ba muy sëy trois minutes sept minutes kon xam-xam bi ñuy waxee c'est la logique waaw logique la waaw góor bu amee wér-gu-yaramam am force intérieure am di dund gu baax def sport masturbé wul awraam yaramam àttan ko yaa ngi dégg kooku mën na sëy ngir dundam mën na sëy tout en vie awra ak force intérieure parce que yaram bu nekk awra bi mais force intérieure donn la ci giir la ci xeet la yàlla moo koy maye day gis ko am force intérieure bu yéeme doole biir bu wér am jabet bu foor te kàttanam du néew ba daf fekk awraam nekk awra bu yemamaay mais képp comme awra bu gudd jabet du la lebal nga am tension di jël benn comprimé par jour du la lebal nga am prostate du la lebal doo am kàttan waaw doo am kàttan góor nag dafay judduwaale ngóora bi mu juddoo bi mu feree lay commencé di jugal bu feree rek day commencé di jugal nekk góor ci ossature ci croissance màgg gu gaaw ossature yax mën nga am 13 ans génne mandiw xale mën na am 13 ans di euh, mën a sëy te du génne mandiw xale mën na am 13 ans sëy jën génne mandiw xale mën na am 13 ans masturbé wu du génne mandiw mën na am 13 ans masturbé wu génne mandiw quinze ans da ngay ñor xomb waaw loolu laal da génne mandiw sëy nag da ngay bëgg ba 18 ans sëy dafa am yoon malheureusement fajkat yi ngay dégg ci réseaux sociaux yépp xamuñ dara ci awra xamuñ dara ci sëy moo tax arnaque bi bari moo tax arnaque bi bari te képp koo nax ci awra du du bu fenn du dem commissariat du bu fenn da ngay perte ku ku yor ne ci yor nga frotté bu yokk awra tamit da ngay nax nit ñi lex lex euh, di nax nit ñi am nañu ci nax nit ñi ba nekk ci ay millionnaires yu mag ci ay pommade rek am na pommade bu yokk awra nax ci nit ba nekk ci ba nekk ci millionnaire bu mag mais yàlla kay mënu ko nax waaw faj moom résultat moo la yóbbu ca kanam mais foo toll dem ci télé yi foo tollu dem génn ci réseaux sociaux yi man damay génn ci réseaux yi mais c'est très rare lay génn mën naa toog un mois ma am deux vidéos parce que au matin damay liggéey ma dem ci réseaux bi liggéey yaa ngi ma wax ma liggéey ma ñàkk wax ma damay liggéey parce que dama expérience te dama ci yàgg du ma ci gan toog naa benn moment huit mois déw ma ci réseaux sociaux yi déw ma ci fen laa dem ci Facebook. parce que man c'est très mën naa ni sax plus de cinq ans six ans ngi déw te damay liggéey damay travailler li ma ko may mooy résultat ku ma faj mu indi keneen loolu moom mooy xam-xam waaw mais nag boo lu baax nag mën nga ko publicité wax ko nit ñi dégg ko mais fii Sénégal ñi fi wax dañuy faj ngóor a ñëpp dañuy soob ñoo gën a néew kattan di jaay garabu kàttan bu baax amul Sénégal mel na man maa ko fi yor boo nee man doone ñaar doone ñett garab bu baax bu amul benn effet secondaire laay wax tama garabu kàttan da nga may woo léegi ma ne la garabu kàttan da ngay ñëw rendez-vous ma xool la ba noonu laa jaay parce que dama ci am ay clientèle yu bari parce que bu nekkee ni da nga da nga faible complètement da am garab boo war a jël pas bu commercial soo jugatul da nga war a ñëw ñii xool awra bi lu ci ne ñu tëggal la ñu tëggal la garab togg defar la garab à composé la garab à part loolu mooy logique toogal vingt ans sëyoo ma defal la garab nga sëy dix ans sëyoo ma defal la garab nga sëy loolu moom mooy logique bu jaar yoon waaw ku xamul awra mënoo faj kàttan yaa ngi dégg ku xamul awra maîtriser woo awra awra bu dëng mënoo koo jubbanti maîtrise mënoo faj kàttan man damay jubbanti awra ba mu jub aro day peer dugg ci biir ma xëcc ko euh, def ci li ma ciy def ah moo tax xam-xam dafa am solo dafa am solo mais yooyu nag c'est au niveau c'est au niveau ay traitement awra tamit mi ngi fi dëgëral awra ba mu Ablaye Ndiaye ba mu dëgër këj mi ngi fi ay renforcement mi ngi fi renforcement en vie mais ci kaw nga moytu ay feebar doom feebar hmm? parce que loo faju faju ngóora boo amee feebar sa kàttan moom pour nga jot ko normal du yomb de moo tax yaram bi dafa war a wér nga doog a faju waaw moo tax ku xamul xamul waaw ku xamul xamul kuy xalaat yàlla nag di nga xam li ngay def ku wéeru ci yàlla doo ragal dara tamit doo yomb ba max doo yomb ba max mukk mukk mukk mukk mukk mukk mukk man maay ki nga xam ni faj suma domaine la bépp jàngoro bu la jaaxal ci sa ci sa yaram rek ñoo ñu gis ma ak yow ñetti fan ñu ànd baa ñu tàqalikoo ñetti fan ñu ànd baa ñu tàqalikoo du ma tey mukk naan la dina baax ñaanuma ko yàlla mbokk jàngeen jëf ci barkeb sayxi fàddilu mi buur yàlla dolli noo ay maqaama yàllaaw bisimil ilaahi ci barkeb sayxi fàddilu mi buru yàlla dolli noo ay maqaam yàlla bisimil ilaahi ci barkeb sayxi fàddilu mi buru dolli noo ay maqaam yàlla